nuyu di leen siyaar seen frère la Cheikh Anne léegi daal laa jóge entraînement ñoo gis si réseau yi ñëpp di publier wax ju rëy yoo xam ne Ahmed Suzanne Ahmed Suzanne Camara wax na ko jëmale ko si euh, le président Ousmane Sonko président jomaay ak euh, ay saaga yu ñaaw yoo xamante ni ma gis patriote yëpp di commentaire naan lan la procureur di xaar lan la procureur di xaar dafa am loo xam ne dama bëgg nit ñi comprendre ko ñii dañoo bëgg a créer dossier politique ñoom xam nañ ne dee nañ ba pare ku dee ba pare soxlawul ngay xaru Ahmed Suzanne Camara ñoom def nañ seen réunion ba pare ñoom waa APR seen stratégie la teg mooy naka la ñu war a mën a def ba dossier yi nga xamante ni président Diomaye tegu si coñcam dossiers yooyu naka la ñuy def ba ba fexe ko ba fexe jiital coowal politique. moo tax ñuy xataraay doo si télé di saaga di wax wax ju ñaaw léegi ñun bu ñu daanu si pièce boobu maanaam tey procureur nañu bu ñu fàtte ne procureur yi daan def loo yi Macky daan def loo ñuy def ba léegi amaana ñu ngi fi bu leen fàtte tamit Maimouna Bousso patriote bu baax boobu grande patriote boobu noonu dafa mos a ay building immeuble yoo xam ne Serigne si Gueye ancien procureur moo ko moom. ngeen xam ne kon réew mi dafa am ñoo xam ne ñoom ak ñoom Ahmed Suzanne Camara ñoo bokk lu bëri lu ñu yàq si réew mi léegi nag bu ñu daanu si pièce su yàkkamti ñii leen di jàpp du du ay saaga président déedéet xam nga lan moo leen di jàpp ay euh, ay euh, dossier ak ay. Euh, kii yoo xam ne euh, ñaawteef yoo xam ne def nañ ko mooy nervi yi ñu doon jël nit ñu ñu rey alalu réew mi ñu sàcc léegi yooyu noonu nga xamante ni ay euh, dossier la yoo xam ne mu ngi si taabal bi dossier yooyu noonu moo leen di jàppi ëllëg léegi dossier yooyu noonu ak justice bu bees bii ñëw bi nga xamante ni ñoom gouvernement bu bees bi taxawal nañ ko nga xam ne mu ngi ci seen kanam nga xam ne ñoom seen bopp képp koo xamante ni am nga dossier waxuma dossier politique de parce que lii ñuy def ne dañuy bëgg bëgg a dossier politique coowal politique gis ngeen Lat Diop a nga génn fee ànd ak xaw ma euh, waajooju cogg Amadou Ba boobu naan voilà le combat nii nii affaire yooyu noonu kenn ku ne di lay say lay parce que dañoo am ay dossiers yoo yu yu tiis yooyu nag bis bu sisis bi taxawee bu leen bis bu leen di atte li gën a nekk farata xam nga Sonko mën naa jégale ay saaga président Diomaye mën na jégale ay saaga mais liñ mënta jéggale mooy ñoom ñaawteef gi ñuy def réew mi alalu réew mi ñu sàcc suufu réew mi ñu sàcc nervi yi ñoon jël ñuy dal si kaw askan wi doomi jàmbur yi ñu violé nag ñooñu ne tekk noppi wuñ ko woon wax si jamono bi ñu fi toogee ñooñu dem dugal ay pelent maanaam justice bi ñëw ëllëg si dossier yooyu lay commencé tëj leen si daan leen si ba pare nag soog a indi nag saaga bi ngeen saaga woon président de la république ak premier ministre léegi loolu nag gis nga procureur yi actuellement nii bu dara amee rek buñ leen may ñuy njëkkante dem jàppi waa ji indi kon dañuy créer coowal politique nañu invité lool. léegi nag ñoom li ñuy li ñuy créer nii mooy ñu xëy suba jàpp Ahmed Suzanne Camara ñu ñu coow ak seen i presse kër dof yi télé kër dof yeeg ñoom télé ay journal yu dof euh, yi nga xamante ni ay ma jàmbal jaañ ak ñoo ñoo fa nekk bind. waaw lii lañ doon jàppee lii la lii la so lii la Macky Sall doon euh, doon loolu lañ fi doon xeex par Macky Sall kii lu mu fi wax fi wala jàpp nañ diw bàyyi nañ diw coow loolu ba dañuy fàtte sax. li nga xam ne mooy ñaawteef gi ñu def te dañoo yor population boo xamante ni orienté leen si débat divertir nit ñi divertir leen dafa yomb loolu foofu ñu bàyyi ko xel ñu xam ne ñii coow lañ bëgg a ñu jàpp xëy jàpp Aminata ah, Suzanne Camara wax waa dafa jàpp dafa saaga président dafa saaga premier ministre loolu yooyu la ñuy parce que moom xam na bu defee li mu def lu ko ci war a fekk procureur bàyyil Aminata Suzanne Camara ñoom ñoom ñu bàyyi wax lu leen neex seen bisi ngi si kanam am na lu ëpp farata lu ñu leen war a jàppee lenn daal laay wax les patriotes ak sénégalais yi gis nga ñoom le président Ousmane Sonko président Diomaye actuellement nii liggéey bu ñu nekk tëbal ambassade yi ak consul yi sis bi euh, suuf yu yi ñu nangu ñi ñu rey door leen ay bal dóor leen ay bal ñu wàcc si terrain bi ñu rey leen ensemble national bu ñu war a tas loolu mënoo koo boole ak coowal politique ak manipulation loolu la ñuy bëgg a créer nag ñii loolu lañ bëgg a créer ba yooyu noonu dootuñ ko tal ñii ñu ngi si liggéey bu pire bu bu boo xam ne doo tal sax ay Ahmed Suzanne Camara Ahmed damal wax lu la neex sa bisa ngi ñëw ak yow ñu mel ni yéen ñëpp milliards yi ngeen sàcceeg ñi ngeen rey dana leer